doon ñëw ci dëkkandoor yi dëkk ak ñun ci Medina Baye di ay soppe Baye di ay jullit di ay sénégalais taalibe ak kutut taalibe ndax Cheikh Ibrahima ñëpp la yaatal bi muy sanc Medina Baye jaayut benn kër ku ñëw rek jël ku ñëw jël ba kër yi jeex ba saam noonu la ko mayee ñes Gumba Abdoulaye kooku nag moo bëgg yonantu ba amu ci kem di tatagal gan yonantu bi waaye dëgg-dëgg bi ma doxee fan yii ci biir dëkk bi am na lu ma ci xamoon mi li ma gis tooy na sama xol jooyloo na ma mooy ay doomi adama yu ñun ki gën yàlla moo ko xam ñu nag néew doole yi bu ñu soxlaa néew doole yi ñooy taxaw bu ñu amee àdd yi ñu jox taalibe ak néew ju doole yi ñoo ñu koy jox ba pare dëkkandoor yi nekk fii lu ñaaw lii ma gis fii dëgg-dëgg ñaaw na naqati na yàlla tabaraka wa taala neexut moo naa Cheikh Ibrahima Niass ba tax na nag maa ngi occasion na fii nii di wax gannaaw bu ma doxee ay quelques fan dugg ci askan yi dugg ci kër yi dugg ci néeg yi fekk naa ay nit yoo xam ne ndox yi dafay taa ba ci seen lal yi ñu tëdd to won nañ man yeneen kër yo xamne man mënu mo fa àgg sax ngir ndox yi tégalanté jokkolanté ak ay batox fekk na ay nit yo xamne ni ci ëtt bi da ngay jaar ci ay ay xeer ba ag ay doomi adama ay xalé ñu war di jàngi école feebar yi ak jafé jafé ci aduna bi loolu lay wax ci wax ju gatt ki may ñëk interpellé nak moy son excellence monsieur le président Macky Sall président Macky Sall man jambu xébu bi di jaamu Cheikh ibrahim ci mbeugël di jaamu askan wi ma lay interpeller fo meuna nek ci adina nga nek, fi wala nga nek fo meuna nek deglul sama wax ta nga def lima la wax ci yar ak teggin ak ak la la koy ñaane bëgg na solution bu gaaw bu définitive ci Medina bay mu nga xam ne nii ñuy waxati gam wala ñuy waxati gam tayba wala ñuy waxati ñetti wër wala élection présidentielle yi canalisation ma nga la koy ordre l'interpeller ñu defal ñu ko Medina bay ci gëna gaawé maa ngi lay woo ci askanu senegal yëpp ndax dëgg-dëgg askanu Sénégal soxla nañ ndimbal jafe-jafe yi bëri na na taxaw ci askan wi doll dolli ci na nga taxaw woon yàlla boole woon na ma feeg yow yàlla xam na tabaaraka taala yow xam nga waxoon naa la ne la askan wi laa la dénk ak gannaaw bu ma la jénkee lislaam président taxawal ma ci lii ci num gën a gaawe mu ñeel askanu senegal mu ñeel Medina Baye bi nga xam ne dëkkab lislaam la dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy bàyyi ko fu nekk ci àddina bi ay millions nit ñoom ñoo fi aju image yi dëgg-dëgg ñaaw na te nag lii du lu bees monsieur le président Macky Sall man yow lay waxat ak teggin ak yar képp ku la bëgg nag wala ku la mën a conseiller foo mën a nekk lu sa agenda xat xat xat nag la jotal sama wax ji li ma li ma yëkkati du caaxaan suñ borom bi moo bëgg ñu ñu ñu jeexal lii Cheikh Ibrahima Niass moo bëgg ci baatin ñu jeexal lii ndax dafa ëpp dafa jéggi maa ngi ñaan nag yàlla defal ñu tawfiq defal ko ñu fi dëkkee ba suñu wax ji ak jëf ji bu mu nekk ngelaw rek wala ñu jàll ci presse rek ñu seetaan ko mu passé ñu ñëw di ñu gérer. monsieur le président Macky Sall yoonu Medina Baye baaxut fan yii wàcc naa ci terrain bi xoolaat ko diggoon nañu fi daaw wala daaw jeeg 5 kilomètres yoo xam ne ci ministère de sax waxtaanee woon nañ ko fa ba ba léegi dara amu ci. fan yi ni dañuy dañuy dañuy deub deubal rek ya jour nak commencé nañ wax deug yalla ndax ñun ku défar ñu né défar nga ku defarul ñu né défaro ñu ngi jéggalu yàlla nag suñuy bàkkaar ak suñu juumte ma gëna xébu waye nak lima gis ci askan wi dal ma ngi lay ñaan urgence la urgence la danger la danger la bo xamni ni ñi niñ nekké ni wallahi dafa metti dafa metti ba jéggi dayo mais nañ taxaw askanu Sénégal buñ bëggé jamm gëna sax ku ci bëgg nguur wala bëgg taaj fi ku la neex lima la wax nang ko def Medina Baye la way Medina Baye moy senegal yëpp buguma sori ba melni politique motax may wax ma ngi yem fi di la dila di ñaan yalla nañ la ñaan ci ñek ak teranga way yow yaay responsable bi nga xamne senegal Sénégal yëpp solo so nek yow mu xiyaama yow la ko yalla di laaj askan yëpp la nekkal ñi xam ak ñi xamut ñi jup ak ñi jubut ne ju doole jaamukati yàlla yi ñëpp la taxawal tay fi di len waxal peuple mo juk li may def ni nak mo gëna graw manifestation bo xamne rew mi yep président li ma def ni moko gëna graw nak dafa and ak batinu yalla du ma niti baatin nak wa yalla mom moy lewul moy lakhir moy zaayiru moy batinu fofu la yem menacé wuma pour ñuy jox rapport yi way askan yi man maran wax ne te wax ba l'islam moma jaral joxe sama bakkan ci kaw deug xamna soxlo nañ autorité yi ak ñi man ñu def lo xamni ni fi fii ak gàmm dana régler waaye waxuma gam gi jeex rek ñu bàyyi bëgg solution bu leer sa ndaw yi ñëw fi ni ci gam gi ci njëkk ci njëkk ak teranga ma ngi ñaan bu wax ji convaincre na la nga taxaw ci ak lu dul lii ñu jël ay décision yu wér parce que wér gi yaram bala nga ne naam nekk fi